Kër Ñam di jàkkaarloo ñun ci seen ah. chaîne Dakaractu TV euh, ci numéro euh, bu bees bi nga xamante ni moom mooy seen émission en ligne di si dalal yenn saay yenn ci ay kàngam ci ku ci domaine bi ngay yëngoo tey di nag ñu am plaisir bu mag a mag di dalal ab soxna euh, di madame la ministre Zahra Iyane Thiam madame la ministre ñu ngi lay nuyu dalal. maa ngi leen di fay. voilà ñuy fàttali ne yaay ministre. de l'économie solidaire et sociale di poste bi nga xamante ni euh, ci dernier remaniement bi moom lañ la tabb alors euh, laata ñooy doon ministre gis nañ nga doon yëngatu ci wàllum euh, jigéen ñi ak li nga xam ne moom moo di plateforme des femmes ànd jéego boobu noonu ci diggante plateforme bi ak ministère bi benn pas la wala ñaari fonction yoo xamante ni tey jii say activité am na loo xamante ni ci waaw maa ngi lay ah. nuyu di nuyu également ñi ñuy seetaan ñëpp à travers l'internet Je vous sant aussi ces invitation bi vous ma invité euh, di comme euh, gouvernement bu le bi président Macky Sall def na bi élection yi présidentielle ci la effectivement tabou, euh, jox département bi microfinance ak économie sociale et solidaire mu nek département bo xamné Euh, bu am solo la ndax wàllu microfinance ñëpp xam nañ ban euh, wàll la war a am ci lépp luy suqali réew mi boo ci dollee li ñuy wax économie sociale solidaire muy loo xam ne dafay li ko tax a jóg mooy képp ku ne ci dara di yëngu képp ku bëgg liggéey mu mën a ñëw sawet gunge la loolu nag bu amee damay jàpp ne rek day méngoog euh, fi ma yëngu yëpp du doon ci benn kuréel rek walla ñaar mais sama cursus ci wàllu euh, mouvement associatif moo xam ci wàllu politique la moo xam ci wàllu développement la méngoo na en tout cas ak euh, man engagement bi nga xam ne am naa ko ci bëgg indi sama contribution comme sénégalais yëpp nuñ koy defee ci lépp loo xam ne mën na tabax réew mi. Mhm. alors ku wax microfinance wax li nga xam ne moom moo di ñi nga xam ne dañuy yëngatu di di demal seen bopp soxla li nga xam ne mooy financement ku leen jàppale alors ba nga yegg ci département bi peut-être dem nga diagnostic lan nga gis est-ce que gis nga ni sénégalais yi souvent. ils vont vers l'information soxla nañ ku leen jàppale parce que ñu ngi yëngatu soxla nañ financement par rapport li nga xam ne mooy seen activité waaw secteur microfinance boo seetloo li tax Sénégal euh, taxaw si ne dafa bëgg mu développer ko euh, microfinance dañ ko jagleel ñi nga rien. ne xëy na euh, conditions condition yi ñu di pour ñu mën accéder au financement ndax financement structure yu bari dañ koy def surtout d'habitude li ñu doon gën a xam banque mm-hmm. mais banque yi pour nga dem ñu mën le lebal investissement wala financement bo xamné dina la permettre nga mëna épanouir euh ci sa activité bi ngay def dafa am condition yo xamné euh ñom tamit foog nga jox leen ko ndax alal bi ñuy leble dafa am fenen fu mu jóge légui nak euh, nguuru Sénégal ci taxaway bi mu wara am d'abord euh, di jox ay mécanisme ak ay jumtuwaay yo xamné askan bi dina leen permettre ñu mëna entreprendre mu ne ni ñu indi li ñuy wax microfinance mooy kenn ku nekk la nga tollool ak la nga soxla ñu mën la defaral ay kuréel yoo xam ne eh, di nga ci mën a jot microfinance boobu nag mi ngi jaar ci li ñuy wax SFD mooy système financier décentralisé SFD boo ko déggee mën na am ay réseau ñu mag ñu ñu xam lu mel ni PAMECAS lu mel ni CMS lu mel ni ACEP réseau yu mag yi SFD également mën na nekk mutuelle locale mutuelle locale mooy euh, soit ay artisans yu dajé dëkk ci benn gox ne dañuy def sen mutuelle ñom ci sen bop ñu dem wuti financement nguur gi walla banque yi jox leen financement ñuy leblanté sen biir donc mécanisme yoyu lu am la Sénégal lo xamné diagnostic bi ngay laaj bi ñu ñëwé ñu ci melni ay BCEAO dañ koy faral di def wala ministère de la finance des finances ndax les lu jëm ci microfinance c'est réglementé maanaam du ministère bi mooy taxaw ne euh, anam yi lañ ko nar a defee fait dafa romb état Sénégal puisque nous sommes ci li qu'on wax UEMOA mooy euh, organisation communautaire donc nous avons fixer les grandes lignes du financement taux d'intérêt yi ñaata la war a mutuelle et ak SFD yan conditions que nous devons remplir etc. Nous avons ànd ci ministère qui euh, nga xam ne finance ak budget Sénégal donc nous, au niveau du ministère nous avons une orientation générale on promouvoir le secteur microfinance am doole ñi ci di mën a am jumtuwaay yoo xam ne bénéficiaires yi askan bi ñëw di wut si euh, ci ñoom ñu mën ci jot loolu nag am na pàcc bu am solo dëgg la sénégale euh, sénégalais euh, war nañ gën a mën a dem ci wuti information jumtuwaay yi nga xam ne état bi jagleel na leen ko mais ñun tamit ñi nga xam ne ñooy état war nañu di communiquer aussi ci jumtuwaay yi nga xam ne yor nañ ko pour askan bi xam mën a ñëw jëfandikoo ndax politique yi nguur gi di def askan wee ko moom donc askan bi war nañ ko xam moo tax def nañu ay tournée yu bari wër Sénégal pour wax lan mooy liggéeyu ministère bi lan la bëgg def nan la ko bëgg defee ban taxawaay lay xaar ci nit ñi euh, def nañ bëgg nañ def aussi salon bu mag pour gën a mën a fësal euh, mission wu ministère de la microfinance et de l'économie sociale et solidaire mais mais en termes de prêt ci wàllum lépp Sénégalais yi dafa mel ni dañuy gën a am fit bu fekkee ne nguur gi la état la parce que souvent ñu bëri gis nañ ne dañ naan ah bu fekkee état la sax même boo fayu sax duñ la ko baal euh, duñ la ko laaj ak yooyu noonu contrairement ak yi nga xam ne mooy structure financière yi nga xamante ni c'est un peu privé gis nañ fii DER euh, ki nga xam ne moo di délégué bi sax indi fii le fameux 3P boobu ñuy wax préfet police yooyu noonu yëpp alors est-ce que yéen si wàllu microfinance bi ngeen nekk am na ay barrières yi ngeen xam noo xam ne teg ngeen ko ak ay garde-fou pour que nit ñi aussi bu ñu lebee ñu mën a delloo comme ñuy naan revolving en général euh, c'est votre cas est-ce que dinañ ko gis ci seen département. waaw xam nga état du. du jëflante directement ak mm-hmm. population yi ndax loolu du rôle état état moom day créer conditions yi après population yi mën a dugg ci conditions yooyu moo tax euh, ci wàllu leblante état du directement toujours day structures ay structure tudd nga DER mais également système financier décentralisé yi ñu wax état bi day dem def ay crédit concessionnel ñeu jox leen pour ñom ñu mëna joxat askan donc ñun li war moy comme ni nga wax recouvrement ak mën buñ la lebalé nga fay euh, lolu euh, taxaway ministère bi ñun liñ ci gis mooy euh, nit ñi waruñu leen def pression pour ñu fay mm-hmm. mais à côté mën nañu créer condition yoo xam ne dina tax alal ji ñuy leb ñu mën a atteindre seeni objectif ndax boo jógee di leb boo demee ci structure financière yi euh, dañ lay laaj lu nga bëgg mm-hmm. financement bi ngay wut lu nga koy wut su fekkee ne wàllu euh, def activité ponctuelle comme par exemple nga am céet walla nga am euh, ngenté wala dara lolu difficilement nga ci wute nga ci amé prêt bo démé ci walu institution parce que euh, bu féké né den la lebal xaalis si te à côté indiwoo garantie yuy mën a firndeel ne di nga ko mën a fay yow di nga am problème mais également institution de microfinance bi dina am problème te su boobaa politique bi nga xamné état bi daf ko jël jagleel ko askan bi moy am problème motax kenn ku nek dañu wara xol sa taxaway ba mu mat nous nak ñun li ñu japp ci walu ministère bi mi ñu légui euh di ci waxtaan et puis dem déglu aussi à la base ndax daanaka ci 14 régions Sénégal yi def nañ ci 12 régions fi ni Tamba ak Dakar la ñu defagul Té, le gi ben la moy euh, nañu buñ di jox financement aussi parce que ñom ligéy la ñu bëgg donc ça c'est un premier élément bu am solo nit ki day bëgg ligéy day am lu bëgg def Imam bëgg liggéey ci dara ba pare bëgg ko donc loolu benn la mais ñaareel bi ñu naan bu leen ñu bàyyee suñu bopp te kàddu boobu bu am solo bu ngeen ñu suñu former ci li ñu bëgg def nañu capacité mais également nañ leen kon ñun ministère bi li ñu gis ne chaîne de valeur parce qu'en amont, le président de la république a dit nous avons entreprendre bien, mais nous avons entreprendre mën nañ ko organiser Et nous koy organiser ñu indi leen modèle boo nous nous sociale solidaire donc nous leen euh, adopté ci ñu adopter économie sociale solidaire comme modèle d'entrepreneuriat mais également nous nous mettre des équipes yoo xam sur toute la chaîne de valeur dañ leen di top manam bi ngay tambalé projet bi biñ kay doxal ba bi muy yegg à maturation day am ay agents de développement de l'économie sociale solidaire yo xamné dañ koy jagleel kuréel yi nga xamné ñoy wut financement su boba duñ fi nek naan ndax rembourser na wala remboursé wul loolu dootul nek question su boba li nek question bi moy euh, activité bi yokuna nan lañ ko gëna mëna mën nan nga gëna mëna amé produit de qualité boy mëna dem à l'étranger euh, exporter ak yoy mm-hmm. donc euh, pour ñun xalaat bi ñu nekk di def du nekkul ci naka la nit ñi di fayé mm-hmm. parce que nit ñi il faut plutôt mettre les conditions pour que nous puissions faire sans problème pour que nous réussir cette activité. effectivement alors nous avons un petit département de l'Église, nous avons ne chemin au delà des tournées yi ngay def yaa pratiquement 14 régions yi def ngeen des 12 mu mais au delà de ça également il y a encore une salon bu mag bi ngeen di préparé microfinance et l'économie solidaire et sociale est ce que nous avons un petit salon pour nous, moo un objectif

Euh, modèle d'entrepreneuriat Donc, le am donc groupe yooyu bi ñu ko tegee euh, njiitu ministère des affaires étrangères Nous avons aussi ñu le groupe qui def 11 secteurs d'activité Nous nous un groupe d'impulsion 11 secteurs d'activité euh, war nañ ko ci pour xëcc secteurs Nous mu bokk nag ci secteur économie sociale solidaire donc nous sommes au Sénégal féetale ko ministère euh, de l'économie de la microfinance et de l'économie sociale solidaire Maroc moo njëkk def salon parce que nous, groupe bi dañ jàppoon dina bok ci li gëna a secteur yi ak liguey bi ñuy def ñu organiser ay salon mm-hmm. salon yo xamné at wala ñaari at yu ne benn réew day ay bi ñu tàmbalee édition bu salon Maroc en 2017 en 2019 Sénégal mo salon fait nak ñun parce que Maroc ça fait plus de 11 ans ñi ngi économie sociale solidaire développé na au niveau du Sénégal économie sociale solidaire Nous nañ wax dafa bon tradition parce que économie sociale solidaire ku ko bëgg def da nga nekk ci mbootaay di nga nekk ci euh, leket di nga nekk ci mutuelle di nga nekk ci coopérative mën nga nekk ci exploitation familiale maanaam foog nga nekk ci loo xam ne ñu bari ñooy boole seen doole pour liggéey te ñépp xam nañ ne le Sénégal quand même c'est une société sociale solidaire donc mën nañ jàpp ne ñun dañ ci yàgg nekk mais réglementé wuñ ko codifié wuñu ko joxuñu ko statut boo xam ne dañuy mën a wax ne ah ñiy yëngatu ci anam bi waa ay acteurs de l'économie social solidaire la ko donc loolu nekk premier défi boo xam ne bëgg nañ salon bi mën ci indi ay xalaat dolli ci euh, ministère bi xalaat yim ci nekk di def à travers sa de politique sectorielle pour nous gën ci mën orientation mais également ñu jagleel ko forum scientifique qui a été ay sommité yu mag dinañ jóge ci yenen réew ñëw ñu xol yenen euh, forme d'économie sociale solidaire yi am bitim réew ñu xol aussi ñun suñu boss ni mu mel ñu adapter ko ci les meilleures pratiques yu am ailleurs dans le monde mais également salon bobu dina permettre acteurs yi nekk ci économie sociale solidaire chaîne de valeur yi ñuy créer ak structure yoo xam ne bokk nañ ci li mën a jëmmal chaîne de valeur wala yóbbu ko ci kanam ñooñu ñëpp ñu fexe ba ñuy dajee xamante waxtaan kenn ku nekk wax lan la am ak kenn ku ne xool lan la mën a jël comme njëriñ ci moroomam mhm. donc euh, mu nekk plateforme d'échange euh, de partage boo xam ne lu am solo lay doon pour mën a fësal économie sociale solidaire moo tax dinañ ko def ci jiiru juróom benn fan du 29 octobre au 5 novembre mhm. euh, acteurs yu Bari Côte d'Ivoire du Maroc 14 régions Sénégal ñu tassé centre des expositions bu pour mener des échanges, échange partage et mutualisation Nous Nous ci nag que euh, euh, le jeudi 31 octobre mhm. nga qui dit ci président Macky Sall kenn ku nekk réew mu ne dana wax lam mu def nu mu ci toll moom président ci boppam mën a weccoog askan wi ci vision wam économie sociale solidaire ci lu tax mu tànn ko ak fan la jëm ak vision boobu ak yan mécanisme la ñuy teg et donc jàpp nañ ni dina bokk ci liy gën a dimbale ministère bi ci wàllu luy jëmal liggéeyam kanam.

loo xam ne yàqul woon dara ci activité connexe yi ñu am euh, ni ñuy liggéey ci plateforme bi noonu la ñuy liggéey ci politique noonu la ñuy liggéey ci mouvement donc euh, li am solo rek moy nga organiser wu ministère bi li tax mu wuteeg lenen lepp luñ doon def ministère bi ministère institution de la République Sénégal yépp ko mo. donc ñun suñu ambition

léegi nag euh, li tax ñu jóge ci développement dugg ci politique aussi euh, dafa am ay situation yu ko waral mais suñu base sociale bi nga xam ne c'est le développement local kooku aussi duñ ko mën a bàyyi euh, mais loolu lépp nag benn finalité rek la am mooy bokk ci liy tabax sa réew te dinañu xool loolu lépp nag lañ ko war a mën a boole action efficace répondre préoccupation président euh, tes préoccupations président du lenn lu euh pour taxaw fété sénégalais yi fi ñu mënul fété sen parce que engagement bobu le jël ak ñom bam di présenter programme am liggéeyal dégagé ci cinq grandes initiatives majeures mu né quinquennat bi ma jëm euh, ci juroomi atti bëgg naa lépp loo xam dafa jëm ci walu ndaw yi PSE jeunesse ma taxaw ci bu baaxa a baax bëgg naa lépp loo dafa jëm ci walu économie société euh, économie sociale solidaire ma taxaw ci bëgg naa lépp lu jëm ci société numérique inclusive lépp lu jëm ci industrialisation indi le programme des cent mille logements indi le programme de zéro déchet zéro bidonville donc yoy yëpp ay orientation le président dafa né fi la bëgg euh, sama askan dolly ci PUDC ci Promoville ci Puma euh, indi ay dans la perspective l'augmentation démographique du Sénégal Dakar ñu jëm désengorger indi bi ministre des transports ngi wax BRT donc c'est une continuité du septennat septennat bi c'était un mandat d'infrastructure Ce qui ne dina mën booster Sénégal mais gis ngeen euh, ci durée mandat les sénégalais li la croissance ne se mange pas on ñuy que la croissance ne se mange pas c'est parce que peut-être bëggoon ne ressentir effet yi nga yenn politique yi je tax mu ne dama économie sociale solidaire pour une meilleure redistribution des retombées économiques ndax économie sociale solidaire banqaasam bi ci gën a dëgër inclusion économique et financière inclusion économique et financière c'est beaucoup de déggee day laaj lu bari loolu muy laaj beaucoup de redistribution wu à la mi ci banqaas n'y a pas ko euh, préoccupation président donc euh, euh, naka ñuy fexé ba préoccupation président de la république président Macky Sall ñu mën ko jël en charge kooku dinañ ci taxaw bu baaxa baax quel que soit par ailleurs kuréel yi nga xamné ñi ngi ci di ci yëngatu. effectivement alors responsable ah. politique hein, y a bokk ci directoire bu alliance pour la république alors euh, gis nañ né assemblée nationale une commission qui ñu ngi travailler présentement. Euh, le vendredi sax war nañ def plénière pour statuer sur le cas Sonko avec l'affaire des 94 milliards gis nañ ci Sonko ñaari fan yi génn ne tey ji cabale politique lañ monté contre sa personne ngir mën ko téré mu bokk ci élection yi ñu jëm tollu nañ dit foofu <laughs> dañuy wax alhamdoulillah rabbil alamin parce que l'affaire des 94 milliards yakarna Sonko moko ko mm-hmm. du ñun li tax ma wax alhamdulilah rabbil alamin bu doon ñun ñoo ko génne c'est sûr que di ñu bëggee taxé de kabal politique dina jaxe ñu dindi mais comme ñun sookewuñ ko tàmbalewuñ ko génnewuñ ko waxuñu ko xamuñu ko woon wax dëgg yàlla bu institution yi di dox comme na mu war a doxee waruñu ci bëgg jëlee ne kabal politique la ndax assemblée li mu def euh, loolu loi ak yoon moo ko ko may

yuuxu ah kooku mom vraiment euh, mom mo xam mais euh, man lima gëm moy cabale euh, politique mënul téré nit mu doon man lool la gëm parce que bu may jël comme exemple mais kenn gënul jekk ci exemple président Macky Sall moom ñëpp du dañ jàppoon ne cabale politique la mais est-ce que lañu def yépp téré nako doon jitu réew mi biko sénégalais yi bëggé Sénégal askan bi mooy fal kenn du fal texte yi yoon li mu wax nañ ko doxal képp ku sentir ne yoon léser na la boo demee fi mbaxane doon benn nga indi sa xalaat keneen ku la accusé wala koo accusé indi xalaatam yoon tranché ñépp war ci jaar parce que bu ñu deful loolu di fragiliser suñu institution wutal suñu bopp loo xam ne dina tax ba kenn duñu mën a àtte mais fi ñuy jëm duñu neex ñun ñëpp li tax ñu ne institution dafa war a dëgër ci réew mooy kenn ku nekk bu indee bëgg-bëggam nga am ku la àtte mais ñun askan bi bu ñuy suuxat loo xam ne euh, day jëm ci dootuñu am kenn ku ñu àtte baaxul moo assemblée nationale li ñu def yépp ñu teg ko ci seen règlement intérieur li wax mais il faut que chacun l'assume Sonko bu jàppee ne cabale politique la xëy na moom xam na lu tax lu ne ci conclusion enquête bi ba tax mu jàpp ne cabale politique la mais ñun Benno Bokk Yaakaar taluñu cabale politique li ñu tal mooy juróom-ñaari at yi ñu def sénégale yi joxaat ñu seen confiance ne ñu juróomi at yi doxal leen li ñu tal mooy juróomi at yi ñu fexe nu ñuy tarbiyoo seen bëgg-bëgg pour que ñu gis ne engagement yi ñu jëloon am na li ñu tal mooy xool engagement yi ñu jël ak peuple sénégalais nuñ ko respecté mais pour nous, diw war ne fi mën a ou le dieu du fi falu askanu Sénégal par conséquent au niveau de Benno Bokk fait, li amal solo moi ñu faire ba nit ñi gis en tout cas li ñu ci gëm nañ te bëggal nañ c'est vrai que une équation pour la équation parce que en politique si nit di équation day fekk mu mu mu sur la base des urnes mais coalition Benno Bokk Yaakaar mi ngi dem élection élection bu mu dem mi ngi koy gañe kon kay ñun xanaa kon euh, dañu gëmul yàlla bokk bu fekkee nit ñaa ngi nekk équation ci ñun ñun benn équation la ñu am Benno Bokk Yaakaar benn équation comment satisfaire au mieux la préoccupation du peuple sénégalais équation quoi rek la ñu am leneen lu fi nekk rek euh, adversaire politique la bo xamné ne dinañ la analyser oh, failles pour bénéficier parce que c'est ça aussi la compétition politique elle est saine ce qu'on fait te dafay fait, ak yoon ba léegi wax Benno Bokk acte politique envers des adversaires politiques on ne peut pas nous le reprocher parce que aussi nous sommes des républicains président président de la coalition Bok et Akar en première ligne c'est le premier républicain donc nous dañuy xool république lim ñu république lim ñu permet, ñu jaar ci des fois nag ngalaju politique yi bu boo jàkkaarloo ku def erreur politique ah <laughs> on va pas lui pardonner l'erreur politique Wow, Khalifa Sall c'est une mm-hmm. erreur politique qu'il a commise mm-hmm. erreur politique bi mu commettre moi mu jël alalu askan wi def defee jëfandikoo ko nu yoon waxul donc loolu buñ ne waaw yoon dafa dal ci kawam parce que c'est politique non parce que lim fi nekk yépp yoon dalu ci kawam. sauf que gars yi nañ am na ay rapport IGE ak OFNAC yoo xam ne dañ ko rangé au oubliettes yoo xam ne tey waroon nañ ko dépoussiérer ba léegi France daal di xideen loolu xam nga yow mën na nekk sa avis wala mu nekk sama avis. mais lii yoon wax mooy ni ñuy jëfandikoo rapport yi ak lañ ciy def kooku sañ-sañ bi. président la ko wax naka la koy donc bu ko deful euh, voilà li c'est politique wax suñu xalaat mais ba ak donc président li tax jox ko sañ-sañ c'est parce que mom dina a xam yow ko xam man ko xam on gardien de la constitution yow yaay garant de la stabilité yow yaa war a protéger les personnes les biens et les services jox ko jumtuwaay yuñ la joxul yuñ ma joxul ndax tey président bu ko neexee balaa muy tëdd fii ñu toog di wax mu xam li fi xew xam li ñuy wax lan mais jumtuwaay yu mel nonu, kuñ ko jox ci réew sañ laa mën a jox sañ-sañu di dogal ca la nga xam donc loolu lépp suñ koy def du pour mën a ma samba wala noot ma demb ci li ma jàpp bu lu mel noonu amee pour garantir sécurité population bi sécurité nation bi la en fonction de la sensibilité des informations yu ñu am tax nag euh, li am ba des mooy am na ñoo ne ñi ngi ci ay poste yo xamné buñ doon wax sa su ne li ñu xam kon rew mi tukki lolu nak garantie yooyu sécurisation yooyu am euh, dafa am fu mu war a tegu c'est c'est ça les fondements pour man d'un état mm-hmm. donc euh, euh, tant que président li muy def mi ngi dëppoog yoon rek pour man waruñu ko ci mën a tenir rigueur mm-hmm. madame la ministre dëkk bi jamono ji toll réew mi mën naa ne am na daal président de la république Macky Sall ak Abdoulaye Wade joxante nañ loxo décrispé nañ li nga xam ne moom moo di politique bi Khalifa Sall génn na prison Euh, yéen way politique yi loolu baax na ci yéen comme ngeen gis askan bi seen xool xaw na feex ak yooyu noonu nan nga jàngatee atmosphère boobu nag nga xamante ni moo di xew-xew yi fi am. waaw xëy na réew mi ña musul ñàkk dal. Mm-hmm. mi moom wax dëgg yàlla dañuy sant yàlla am na dal mm-hmm. li am dal mooy situation politique. mais yéen yéen ñu not. waaw léegi moom moom boo leen yëngatoo rek moom lépp yëngatu na ci ci réew mi. waaw c'est que peut loolu kon kon damay <laughs> jàpp rek ne askan bi yëpp dañuy politique parce que comme ni nga ko waxee ñun ñu noo xam ne war nañu mën a noot askan bi peut-être nag li tax euh, politique bi intéressant am solo mooy dafay impacter la vie de tous parce que tey bu ñaari kuréel politique daje euh, jàppante gis nga nit ñi génn marche ñu jàmmarloo sànnante xeer xeex peut-être comme impacté la population yi na pulsion politique bi ñepp di ci baye xel. que bi nga né gis nañu président Abdoulaye Wade ak président Macky Sall retrouvé wu. parce que man je ne parle pas de réconciliation en politique il y a pas de réconciliation ils se sont retrouvés lolu lu am solo la contexte bi ñu retrouvé wu ak anam yi ñu ko défé ñun sénégalais ñepp ci wara a sant parce que même si dara Sénégal ñoko bok ñu am ay valeurs. am ay kilifa surtout ci wàllu diine bi yoo xam ne mën nañu di gindi nit ñi. Mhm. di xëcc nit ñi saa bu situation yu mel nii amee loolu yaakaar naa sant yàlla war na ci. léegi nag li am ba des aussi mooy li ñu def yépp pour man amul lenn loo xam ne teggeeku na ci yoonu yoon. Mhm. amu ci donc loolu aussi dañ koy gën a rafet parce que man dama nekk partisan wu euh, yoon ak principe fokk ñu koy am ci réew. foog ñu koy respecté parce que boo amul loolu li ngay njëkk gàllankoor mooy sa stabilité bopp sa stabilité famille te boo gàllankooree sa stabilité bopp sa stabilité famille forcément da ngay gàllankoor sa stabilité réew te réew yi ñàkk stabilité yi nga xam ne ñu ngi koy gis gis nañ li fa am gis nañ li fa xew ñu war ko daw bu baax a baax ba tax na euh, fokk ñu féliciter acteur politiques yi rawatina des anciens ak euh, anciens chef d'État ak chef d'État en exercice. parce que vraiment nous sommes l'autorité suprême. donc autorité suprême si vous un signal à bi en toute connaissance de cause dépassement ak hauteur bu aussi euh, leçon pour acteurs politiques comme vous avez un politique Euh, ëllëg des naa seet quand bien même jàpp nga ne toll nga ci sa diggu dënd ci sa diggu ndënd foog nga ne mën ngaa def lu ne foog nga ne bu asamaan di wàcc sax mën nga ko téye mhm. waaye ba tey li ñu suñu mag ñi xamal

Euh, madame la ministre Zahra Iyane Thiam euh, jigéen bu pànk la ci wàllu politique ci défendre ay convictions ci défendre ay convictions ak li nga xamante ni moom moo di gëm-gëmam euh. du sama question question yi may dégg ci mbedd mi nit ñi di wax yooyu noonu parce que actuellement mun nañ ne ñu ngi ci au niveau du bas peuple mm-hmm. man nag wax dëgg yàlla bu dee wax dëgg rek maa ngi door a dégg ñu ne ma da nga pànk ci politique d'habitude ñi may dégg ñëpp. des mm. fois dañ may woo sax dañ ma ne yow da nga tooy da nga lewet torop doo doo doo xuloo doo xeex doo xëccoo man loolu laay faral di dégg yéen ko doon wax bokkut ak Aliou de madame la ministre. ah <laughs> kon xëy na damaa def évolution mais pour man politique. xam nga ñun ñi lay poser question yi mooy ñun ñi nga xam ne dañuy dajeeg yow ci point de presse. Mm. ñi nga xam ne dañuy dajeeg yéen ci seen réunion yi nga xamante ni. Euh, souvent dañ ciy jël parole di wax. muy réunion seen section yi seen seen seen seen base politique ak yooyu noonu xam nañ li nga xamante ni peut-être comme ni ñu koy bañ a wax dinañ ko wax sax du tax président de la république souvent présidence la jógee. avant ñu lay def ministre avant ñu lay indi fi ministre mais souvent ci grand combat yi nga xamante ni benn bokk yaakaar da koy mëne bu fekkee ne dañuy jël benn nombre restreint boo xam ne ñoom ñooy mëne bataille boobu. boo bokkul ci kanam tamit di nga ne ci digg bi wala nga nekk ci gannaaw ñi nga xamante ne ñoom ñoom loolu tamit doo ñu ko bañal. waaw loolu am na waaw loolu am na du leen ko bañal mais loolu engagement man noonu laay dundee engagement maanaam damay dem ba jeex kooku d'accord naa ko mais euh, ndax dem ba jeex boobu da nga ci war a boole pànk da nga ci war a boole xadar man gëwuma loolu ci politique bu ñu nekkee fi ñu war a ne ci kuréel yi. la ma fay def dama ko fay def ak sama ay camarades. Mm-hmm. parce que kenn ku ne da nga indi engagement. foofu mën naa ne bu jaree màttante xuloo xeex dinaa màttante xuloo mm-hmm. xeex. Mm-hmm. mais bu ñu décider ba pare. ba desul lu dul nag ñu génn porté su boobaa pour man jarul xuloo jarul xeex. parce que euh, li nga bokk ak ñëpp. bo ci joxe sa xalaat ba pare da ngay nangul majorité bi xalaat bi mu dégager motax euh, man su amone lu may partagé walla loo xam bëgg nako euh, gën ci mëna a suuxat sam bopp moy baña xiro baña bañ mhm. bare mangaayoo ci politique mais par contre ma sincère ma loyal kooku bëgg na ko trop té aussi euh, nanguna suma su ma wané né wane ma nangu ko su féké né ma né ci dëgg nak mom pour nga jëlé ma ci dana metti trop aussi tout à fait alors madame la ministre Zahra Iyane ñu lay gërëm di la sante man tamit ma ngi leen di gërëm di leen sante di mbégg aussi ci waxtaan bi ñu waxtaan ndax waxtaan bu am solo la waxtaan bo xamné amna luma ci jëlé mm-hmm. parce que c'est sûr que buma démé ba tok question bi nga poser, dina dinaa ko gën a saytu. parce que peut-être la am évolution bu ma yëgul. Mm-hmm. donc que ma def introspection. tout à fait tout à fait alors je koy remercier bu baax remercier également ah. internet yi nga xam ne ñoom ñoo doon euh, à travers émission en ligne bi gërëm bu baax a baax ñi nga xam di ma mention spéciale également à Fanta Kounda ah. bi nga elle m'a aidé quand même à la réalisation de ce numéro je ko sant ko bu gërëm leen sant leen jox leen également ci dajee ci fan yi ñëw ak beneen invité seen numéro bu bees bu en ligne d'ici là comme ni nga koy waxee information continue sur la référence Dakaractu